ak xarit yi gannaaw bi nga xamante ne nii ñëw nañ ci Via Nicosi di jaare ci ki nga xamante ne nii mooy suñu sëriñ bi suñu lépp moom Maolana Serana Fall fekk fi ki nga xamante ne nii moom moo jiite wàllu kaamil yi di suñu sëriñ bi Mame Mbaye Fall gannaaw bi nga xamante ne nii nuyu nañ ko ak ñeen gis noonu ñëpp fas yéene maa mu tënkal ñu li nga xamante ne moo ko jotale nit ñi sëñ bi ma ngi leen nuyu beneen yoon di la ziare di sàkku si yow ñaan di wax ne ñuy commencé si bismillahi rahmaani rahim nga laltaay jotaay bi lu war a programme bi tey seet ci làmmiñam mu ñuy tëbbit muy dugg suñuy xol muy jëriñoo ci loolu bi ci yokkoo ba def jëmm ci fàdduñu yi nga xam ne ñoo sosoon daay euh, siyaare bi ginnaaw bi Abdou Birane dikkee ñoo topp ci gannaawam ñooñu waxuñ ko gannaaw bi fi maam waxee ko waaye dañoo continué waat di ko def mu gën doole ci Ndoukoumane ak ci Saloum yëpp suñ fiy dajee nag dañuy dajee ngir fàttaliku benn jaamu yàlla bu baax boo xam ne yàlla mooy ki ko baaxal. Cheikh Ibrahima soppeeku wut calam dëlante woon ak bàyyi kon su fekkee ne ñu ngi dajee fii dinañ fàttaliku lam dëlante woon ak bàyyi te nekk waxambaane bàyyi di waxambaane ne ñoom rek la bëgg bàyyi moomu ak xam googu ne na bàyyi rek la ci xóolu waaye xamoon na fulla lool da xam ne wax jooju mu kóolare antoon ak baay soxna yàqalut ko ko gannaaw gi doom yàqalut ko ko jege ñaale yàqalut ko ko li fi nekk kay mooy waxtu mu nekk dafay gën a xam fulla gën a am kóolare ci baay li nga xam ne moom la yonent bi gën a dina mm-hmm. mooy wóolu gi wóolu yàlla na fépp foo xam ne maqaam moo xam ne góor ak yàlla dina fa xëy rek na fa am na ci ñemee wax am na ci ñemee la wax waaye bàyyi dem na ba ne Ibra Fall du ma ci jotaay mukk mu soppi jotaayam maanaam lépp lu mu nekk rek lu suma dikk du tax mu soppi lu muy wax itam wax ji mu noppi xam ne dem nga ba nga xam sa lépp lu jub la kon ko ku defaru ku defaru la itam da mën a defare mu ngi jafe lool mooy ne ñi nga xam ne ñoom la yàlla jaarale ci loxo muy abdou barhama mi di damka ak ñeneen ak seydi muxtar ka ak Job ak Seydi Aliou Cissé mu jaamal demet muy ay kàngam yoo xam ne béy bi xam nañ leen dootu leen fàtt donc ñëpp yàlla jaarale ko ci loxoom mu yar leen yar boo xam ne ku taseeg ñoom rek soxla ku yaru rek da gis ne kii ki leen yar ko ma tey طلعتها سدار السماء بلادة أرجو بها فيض الفيور لصحبه بلادة فتح قد تكون بفدتي بفضل الله دون شك ولا ريب عليكم بتحزيب النفوس والشم لإدراك ما قد فات عقل عقل لبي li mujj ci bayt boobu mooy li ñu gën xamal solo muy bayt bu mujj yi bi tahzibi nufuus war ngeen a yar seen bakkan yi te war ngeen itam wogosu yàlla yi dañ ko daan mu du gannaaw mu ne Baye dafa wax ne war nañoo yar bakkan yi mu ne moom dafay rey bakkan du xam ci yar moom may refal moom may refal mu ne gannaaw si Baye dafa wax moom du xam ci yar bakkan bi waaye daf koy rey mu waxtaan ak ñuy wax Abdou Thiam muy muqaddamam bu mag def si rab ndax xam nga nu ma def sama bakkan mu naa mën a ko damaa dem ba caalam ma gas ba mu kóor mu suul ko fa. caalam mooy fan. tool baay bu newoon fii ma dem ba mu yàgg ma gis ne bakkan daal bari na pexe mu ne ma dindiwaat su ma ñëwaat dëppaat sulli ko ren ko ba tàggale bopp suul ko bam na man lañ moo man lépp lu ma bëgg def mën naa def kon moom ba bàyyi waxee ne war ngeen yar bakkani moom dafa ray bu mu ne xemut ci ray ko waaye daf koo rendi ba tàggale ko baag dox ba suul ko lu bëgg def ci na julli ñaari rakka ko na julli kaamil bi yëpp Bakara ba Naasi benn Bakara ba ci jaamu yàlla. daan na du góorgóorlu itam ci fexe ba du yàqal bàyyi. te bés boo xamee ne dañuy ji tool bàyyi. baa ñu koy dikk baa ñuy naaf baa ñuy tar baa ñuy bàcc baa ñuy bees baa ñuy jaay gannaaw nit mën na caa yee rek koor lay yendoo. moom bu ñu liggéeyal Baye daal kon du lekk sa li nga xam ne moom la ñuy liggéeyal Baye. waaw mag ñi ko waxee ma laaj suma làmmiñ ne ko waaw man damaa dégg ne waxtu bu ñuy liggéeyal Baye ci luñ mën a lekk da ngay xoor ne ma waaw ma ne ko ah loolu nag ak ni nga xam ne Baye nu mu yàggee mu ne dama bañ yàqal Baye. Hmm. yàqal Baye. gerte ñaari doomi gerte yi nga yëy ci gerte ak bàyyi mën na koo yàq. mu ne mu jël benn doomu gerte boobu. Mhm. boo ko dikkee def ko muy jiw nga jihaat ko. Mhm. dikk jihaat ko defaat ko muy jiw nga jihaat ko. fan ngay mujj ci ay ton mhm. yoo xam ne benn doom gerte bi nga yëy moo yàqal bàyyi ton mu ne kon man du defaral du may defaral bàyyi toujours waaye dama koy du ma koy yàqal mukk waaye dama koy defaral tax am na it lu tumaranke xam ne bu ma ko waxutoon man dana naqadee gëm mhm. moo ne lim yàgg bàyyi yëpp loolu ci ak xam-xam-xam ak sagum ak góorgóorlu ci wàllu bàyyi mhm. mu ne mos sa yegg rek tàllal bàyyi la bu yegg rek day toog mhm. su xaal nexee ci bàyyi pour mu jàllal ko loxo bu koy tàllalee mu jël su ko bàyyi tàllul mu toog ma ne ko ah waaw loolu nag ne ndax aleykum salaam aleykum salaam mu ne ndax aleykum salaam salaamaaleykum sunna la waaye aleykum salaam waajib te ku bàyyi lu war waa joxal joxal xale dëgg rek te ku wëcc lu wëcc lu war rek war nañ naa de toog gannaaw si salaamaaleykum sunna la waaye aleykum salaam moom farata la waajib la soo ko baxee war nañ laa def dara moo tax eh, du ko teg bay man du ma teg bay dara lu du war a teg moo tax ba àndam ak rafet na rafet boo xam ne yàgg na yàgg boo xam ne mun nañoo wax ne eh, eh, seetlu wuñ feneen fu mu rafetee noonu nag gannaaw suñu ànd bu yàgg lañu ndax Ibrahima Diouf daf na xam ni na nga xamam ku la gétteeti ne ko yaa njool Ibra Faal ràññi la bon moom bu tëjali yaatu bi rek la taseeg Baye moo tax bu ñu ñëwee moom Baye bu ko jàll bu gën a yónni ñu jàll dem ca penku su naa la bëggoon naa fay ba jàll te du benn baat ci maarifatu waaye daal xeres naa nit la koo xam ne ñun ñëpp xamee nañ ko njukkal waaye nag bokk na ci garaat bi gën a koowe sax ba muy tàggoo moom bàyyi dem London fii ci Luusi ci kanam mbooloo mi mu ne ko Ibrahima maa ngi dem dama war a dem sori pour faju noppal sama yaram waaye feeg yaa ngi fi diina yàqu tariqa ba du yàqu fayda ba du yàqu ñu ngi ñaan yal nañu yàlla dimbale siyaare bii nag liñ ciy war yaakaar ne moom lañ ciy jëlee mooy siyaare bu mat euh, soo ko defee mm-hmm. dalee matoo yow da nga cay matee mm-hmm. moo tax bàyyi na siyaare bu ñàkk a ndax su fekkee ne ki siyaare moom ñëpp mat mm-hmm. waaye ñiy siyaare si xam na ci ku mat ku mat kooku dana wàll matam nga ki muy siyaare ak ñi muy ànd ak siyaare xam naa ne mu toog rek di toppatoo xaramal booba dafa jaamu yàlla mhm. bañ demee ba nga xam ne soxla nañ ko remplacer kenn ci ñi war a xam fatul akbar ñu may waajoo ji fatul akbar mu daal di jàkkaarlee biir suuf si gis ne di ne yàlla lii nag ñu ne ko kii daal benn waay bu réew mhm. amoon a xaj ba xaj ba deexee mu ne ko sànni daf koy suul te ci xarmee nit ñi la koy suul daal di ko tabax tabax bu rafet bii Hmm. bàyyi na ne ko dem ba ci xarmeel xarmeel ab xaj sax hmm. nga xamee fafatul la ko bar ni ñu koy wuutee la waaye du fi ñu koy wuutee kon hmm. suñ ñëwee nag ci place wàllu yi boo xam fi la dëkk fi nga xam ne fi la faydu euh, ba dem lu baax rek da nga ko war a mën a xam xamee lu baax ci place ab xaj dee kon boo ñëwee ci place am Mahi Arafa doo xam ne ci cause yi man baawul fayda ci place boo xam ne Mahi Arafa ba jógee fi hmm. wax dëgg yàlla boobu place bi mën na fa xamee baax ku fi xamee lu baax rek ci yow ñu yàlla hmm. yan nañ fi jëlee lu baax yan nañ fi matee hmm. mat boo xam ne dootul wàññeeku ki nga xam ne moom mooy siyaare ku mat la it siare siyaare ku man la te ñoom ñu manqué itam ba léegi mat man la cee xamee waaye daan nañu ci indil misaal bàyyi wucca lu ñu lu dafa am ay dañ doon dox di wuti kuñ sàcc dégg na dikk sàngam danañ fay siyaare rafal ñu su nit ñi leen di xool fi ñuy teg seen bagage ndax ñu mën leen a jekk leen ñoom xam nañ ne sàcc seen biir waaye biñ ñëwee jotagul sëriñ bi laaj leen ñu ne ko dañoo siyaare si ngir yàlla dañoo dégg ne dañ lay siyaare si ñu ne ñëkk a ñëw mu a macha allah daal di leen reer gàtt toggal leen reer ñu daal di reer ba rax soo pare fekk mu ngi xam doom joo xam ne léppam dafa tëwoon docteur yi mën ndax dafa feebar mu daal di jël ndox moomu ngir gëm bu yàlla ñëw ne gaa ñëw ne waay ndaw si doomam ji ñii nga xam dañoo ñëw ngir siyaare ngir yàlla mhm. jëlal seen rax si nii nga naan ci sangu ci yàlla mën na la maye taw bët sa mu gis ndaw si jóg mu ne ko lii la na mu ne ko ba ma jëfandikoo ndox moomu daal na sama lépp wér mu ñëw ci gars yi ne yéen kat yàlla defal na karaama defal na leen karaama seen siyaare bi xam na kéemtaan bi naa mu ne suma doom ji tawoon docteur yi yëpp mhm. seen raxas si moo ko saafara gaañu daal di xoolante mhm. euh, ñu ci waa ji ñu génnee seen bagage yi daan rayee nit ñi na ko ñun daal lii muy suñu métier di ko ñëwoon pour siyaare dañoo ñëwoon pour lii mm. waaye gannaaw si yàlla feeñal na ci lii mm. kon ñu ngi delloo suñu yëf yëpp mm. ñu lay jébbal suñu bopp bàyyi liggéey bi doon def kon gannaaw si eh, ku mel noonu xeggut sëriñam xeggut ci bàyyi kon ku mel ni Mahéra Fall sëriñam di Cheikh Ibrahima nga xam ne fa mu wàccee ca Taïba fa la mbitam matee ndax tam ma fàttali ande mat yi waxat xanaa tamit rijaalu kari tam xanaa yi fa mu juddoo fa la mbitam yëpp matee kooku suñuy siyaare kum gërëm kon lépp mën na faa fekk kon ñu ngi ñaan suñu lépp yàlla fa fi suñu saayar jubee yal na fi suñu baat fi jubee lépp luñ loo xam ne gisoon nañ ko muy manqué tey yal nañ ko fi ci yaara ci ñun jig loo xam ne gisuñ ko ci moom gisuñ ko ci ñi nga ñoom la xantal ba ne ñii ñooy ñi mat man mm-hmm. araada mën kumul istiqaamata fa leextani bikum kaa inan man kaan mm-hmm. ku bëgg a jub royal ci ñii mm-hmm. ñu ngi ñaan balaa ñuy jóge siyaare bi jikko yu rafet yooyu yan nañu ko yàlla tëbb te buñ demee yàlla bu ñu rëccati yàlla bu bakkan tax mu rëcc ñu yàlla bu xam-xam tax mu rëcc ñu ndax wa adallahu ala ilmin am na ñoo xam ne xam-xam biñ xam ci la leen yàlla di réerale mm-hmm. yàlla ñu ci yàlla musal ak koo xam ne dafay dem ba mu yàgg mu xam xam-xam boobu yàlla beewloo ko ci wala yàlla bu ñu xam sànq yàlla bu ñu réer tax def loo xam ne lu dul noonu la waaye ñu ngi ñaan daal yal nañ fi jëlee mat boo xam ne dootul manqué ilal abad asalaamaaleykum jërëjëf Mame Mbaye Fall ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla fan bu gudd gu ànd ak wér kii moo ñu nekkal fii nii waaye moo ñu nekkal Medina jigéen ñu xalifa ji loolu ba nga xamante ne nii lépp lu waa kër Maam Ibra Fall def foofu si loxoom lay jaar ñu ngi sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla fan bu gudd gu ànd ak wér ba lépp loo xamante ne nii moom la fas yéene am yaakaar si njaboot gi yàlla yàlla fekk lew ko njawr ñu njaboot gi ñëpp yàlla buy séddalee dara si gannaaw jërëjëf lépp lu Maam Ibra amoon si kattan ak xam-xam ak tur yàlla na yàlla yeggale la fa si barke Seexu Tijaan si barke Baay Ñas jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax lii mu la taay la jiraay bu bu baax baax jërëjëf sant nañ bu baax